bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala maa ngi tàmbali sama kàddu ci turu suñu borom di wax bismillahi irrahmani irrahim di sant suñu borom waaye di julli di sëlmal ci ab yonanteem ak ñooñam ak saxaabaam ginnaaw loolu ñu jël si waat tey ci sunu ñaareelu jotaay bi ci wirdu wi ñu doon def ci wirdu Maaxuus sunu jotaay bu njëkk bi diggoon nañu leen ne danañ ñëw ci baatu wirdu mooy lan ci wàllu luxa ak ci wàllu istilaax bañ gën koo xam baatub al wirdu mi ngi jóge ci alwurud min al maay al wird min wurudil maay ci la jóge nga xam ne bu fekkee ne giléem yi dañoo ñëw ci ndox mi ngir naan ginnaaw loolu nag ñu jëfandikoo ko ñeel doomu aadama yi moo tax sunu borom di nettali ci yonent yàlla Muusaa naan falamaa warada maa madyana suuratu Qasas aaya 23 kon al wird dana firi ndox bi nga xamee ne giléem yi dañuy ñëw di ci naan si arab yi dañ tudde loolu al wird wal ibru naftuha tusamma wirda parce que giléem sax ci boppam dañ koy tuddee wird ndox mi yusamma wirdan li annahu mawrud kon ndox dañ koy tuddee al wird al ibil giléem dañ koy dañ koy tuddee wird li annahu waridun kon gis nga baatu wird ndox dana ko firi di firi giléem di firi naan ginnaaw ba nga mare baatu wird danañ ko jëfandikoo bi maxna al wusuulu aw duxuul nga àgg ci barab wala nga dugg ci barab loolu buñ demee ci alxuraan dañuy fekk suñu borom naan fa awradahum naar wa bisa al wirdul mawruud wa bisa al wirdul mawruud suuratu Huud aaye juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett baatu wird danañ ko jëfandikoo bi ma xam ne ab tuwaatar fi nafsi mahal muhafasat alayha moo tax ñu naan lii war a daxan fulaan kon al wird gis nga mu ngi noonu ci wàllu loxo ci wàllu loxo wird loolu lay tekk ci loxo baatu wird tutulax xalala si yurdu وعلى وقت الو... وعلى وعلى وقت الورد بين السمعين وعلى النسيب من الماء benn partie ci ndox rek danañ ko tuddee wird ci loolu sax la ñu tuddee benn partie ci alxuraan benn xaaj ci alxuraan ñu di ko tuddee wird nga xam chaque jour nga am ab xaaj wala benn partie booy jàng ci alxuraan ñu di ko tuddee wird kon wird mi ngi noonu ci wàllu luxa loolu mooy wird wird ci luxa bi maxanaa bi maxanaa maxal suur bi wird ci luxa mooy barab bi ñuy naane wala maa warada ma amad yadda ay wasala ila maxali suur bi ba tey al wird ci luxa dana firi an nazibu min ash-shay benn parti ci dara al wird dana firi loolu al wird dana firi al israafu ala al maai wa xayrihi bi duxulin aw bi xayri duxulin ndox mi nga xam ne ci la moom la ñuy dikkee di ci jëfandikoo dañ koy tuddee al wird nit ñi nga xam ne dañuy ñëw ci ndox ma def ak maas danañ ko tuddee wird al wird dana nekk benn partie benn xaaj ci guddi gi al wird dana nekk benn xaaj ci alxuraan wala zikkar kon gis nga baatu wird li muy firi ci luxa bari na moom baatu wird li muy firi ci loxo bari na wax naa ko léegi dana firi ndox wir wirdu dana firi gileem wirdu dana firi mar mar wirdu dana firi an nasib minel maay ab groupe picc sax danañ ko tuddee al wird jaysh al jaysh arme sax danañ ko tuddee wird kon kon bu dee ci istilah al wird mooy ay zikkar ay askar yu spécial ñuy jëlee ci alquran ak sunnas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ñaani borom xam-xam yeneen jëfe seen xam-xam nga xam dañ koy def ci ay waxtu yoo xam ne ni dañ koo baaxoo ci guddi gi ak ci bëccëg gi da ci ëpp suba ak ngoon lay nekk kon nga mel nga xam ne day mel ne baatu wird am na li muy firi ci loxo ak li muy firi ci istilah am na lu leen lënkale ndax baatu wird mooy day firi ndox day firi naan ginnaaw ba nga meree mu mel ne ki jël wird utal ko heure di ko def suba ngoon day mel ne saa yu ruuxam maree saa yu xolam maree wird yooyu moo koy suuxat moo koy nàndal nit ki saa yu nekkee ci àdduna ba xolam mar leeru gi suñu borom ruuxam mar mar leeri suñu borom su ko defee bu delloo ci tudd yàlla rek delloo ci wird wi rek day mel ne ku maroon dem naani wala ku maroon dem di butu ndox kon gis nga al wird ci istila mooy ab lim ci ay zikkar ak ñaan nit ki di ko def ngir di ci diyaaleeg suñu borom toroxlu ci kanamu sunu boroom su ko defee nag di wane ak xubóo di tom kon gis nga al wird mi ngi noonu Abu Taalib al Makki bi muy taxarif al wird nee na wird daal benn waxtu la ci guddi ak bëccëg boo xam ne jaam ji da ci wéetal boromam di ci jaamu boromam loolu la la wax ba tey al wird ci istilaa mooy nit ki am ab parti loo xam da koy jàng wala lu ñuy sikkar wala ci julli wala leen ak topp yàlla daal nga wutal ko heure bu spécial di ko def heure boobu loolu la nga xam ne al wird mooy zikkar yi nga xamee ni taalib di koy jël jële ko ci sëriñam di ko wird subaa ngoon ginnaaw ba mu juree suba ak ginnaaw takkusaan bu la neexee nga ne al wird ci istilaax suufiya mooy li nit ki di toftale ci ay zikkar ak ay xeeti jaamu yàlla nga xam ne nit ki da koy warlu di ko def utal ko heure wird nag ku réer rek moo koy xeeb loolu la ibnu ataila al askandar yi wax kon wird mi ngi noonu ci wàllu istilah kon al wird mooy li nit ki baaxoo def aada woo def wutal ko heure moo xam ci dikr la jàng alxuraan tudd yàlla mën naa nekk julli wird mën naa nekk sax alxuraan bu dee ci alxuraan mooy li nit ki baaxoo jàng ci guddi gi wala ci bëccëg gi moo tax benn partie ci alxuraan mi koy tuddee al wird nga ne xaraxtu wird yi fekk mooy jàng naa li ma waroon jàng ci alxuraan li nga xam ne moom nga sosoo par bis di ko jàng ñu ne li fulaan kuloo lay retin wird yi moom alxuraan di di mi kat am na ab partie boo xam ne ni ab xaaj ci alxuraan da koy jàng guddi gi jot nga xam ne loolu day nekk maqdaar miqdaarun maalum mën naa nekk supp nga xam ne par juróom ñaari fan la mën naa nekk nisfu supp yu demee noonu mën naa nekk ñaar fukki isib mën naa nekk fukki isib ak juróom ñu ngi aju ci nit ki rek ni ko jotam may kon wird mi ngi noonu ci wàllu istilah nga xam ne lu am solo la nga xam ne day mel ne doomu aadama ni muy maree ci zahir di wutu ndox mu mu naane noonu la ruuxam xolam noonu lay maree leer suñu borom bu ko defee nag mu wan koo jële ci dikrullahi googu nga xam ne mooy awraat yi nga xamee ne moom lay jëfandikoo di ko wutal ci heure spéciale boo xam ne ci la koy def kon wirdu mën naa doon lu ñu zikkar wirdu mën naa doon ak dog ci alxuraan booy jàng wird mën naa nekk ab dog ci xasida booy def wird mën naa nekk ab ay lim ci ay rakkaat yooyu def wird mën naa doon ab lim ci salaatu ala nabi booy def wird mën naa doon looy sikkar nag subaa ngoon dafa mel ne kon buñ dee wax al wird ñun boobu lañ ci jublu mooy bi nga xam ne da nga koy sikkar subaa ngoon te li tax ñu di ko waxtaanee mooy wird maa ko bi nga xam ne. wird am na ñetti maxna am na bi ñuy wax maxna al am mooy bépp naafila goo xam ne nit ki da koo waralul boppam di ko def ci waxtu yu précis mën naa doon julli mën naa doon julli nga xam ne ñu ne kii kat wirdam guddi gi jot téeméeri rakkaa la wala ñu ne kii kat wirdam bis guddi gi guddi gi jot juróom fukki rakkaa la mën naa ci joxe misaal boo demee ci Minanul Baaxil Xadim te sama turam la def ko Cheikh Mahamadul Basir ba muy tudd sëñ Mamoor Jaara bi naan wa kaana daata yawmin arsala ilayhi aqu sayxana Momar Jaara alkasir fi salaati wa tilaawati ahadu fursaani layli nee nga gëlum ci teg wa kaana yurduhu mi'ata rak'atin kulla laylatin nee na Mamoor Jaara lam baaxoon di ko def di ko jaamu yàlla te mu doon naafila guddug jot moo nekkoon téeméeri rakka téeméeri rakka yoo xam ne alxuraan la ci tari kon gis nga foofu baatu wird la jëfandikoo te moo ne li muy def ak julli la mën naa doon dog booy jàng ci alxuraan wird mën naa doon koor sax max na xam bi moo tax yont bi sàlla wax ne man kaana ala wirdin min salaatin wa sawmin fa manahu minhu maradun aw haramun aw safurun kaana lahul ajru taaman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku am loo baaxoon def moo xam julli la wala koor la feebar wala màggat wala tukki tere la ba mënoo ko def nee na sunu borom da lay bindal yool doolu nga daan def yool bu mat sëkk hadis bi at-Tabaraani indi na ko fi Kabiir mu jóge ci hadisu Abi Zarrin Ibnu Maaja wéral na ko beneen maxnaa bi mooy maxnaal xaas ñu jublu ci tudd yàlla rek moom wirdu am na beneen maanaa nag mooy maanaa xawaasul xawaas loolu nag moom moo ñu tax a wax ñu ngi ci jublu ay zikkar yu jaglewu yoo xam ne dañu ko toftale toftale gu jog gu gu jaglewu wutal ko waxtu wu précis nit ki di ko def la ci ëpp nag day jóge ci yont bi sallallahu alayhi wa sallam yaxsatan aw manaaman wala mu jóge ci an tariqil ilham bu ko defee kilifa googu nag jële ko ci yont bi di ko digal ay taalibeem ñii di ko jëfandikoo kon wird woowu moo ñu taxa di wax kon gis nga baatu wird loolu lay tegtale kon ñu ñëw nag ci sëñ bi moom définition bi mu jox wird moom sëriñ Tuubaa ca Masaalikul Jinaan dañ ñëw ci Masaalikul Jinaan sëñ bi am na bunt bu fa def tuddee ko faslun fil wird ma nga naan amma isaa jahilta sha'nal wirdi fa'lam bi annahu adimal qasdi mawqihu fi sharhi min ajali mawaaqihi al-qurbi inda al-kulli wa hadduhu inda dawi al-ifaada shay'un murattabun min al-ibaada fi waqtihi suma istifaquhu ata min alwurudi fi lmiyaahi ya fata fa kullu wirdin yuridu lmurida li hadrati llahi walan yahida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwahuma min alaqtaabi is kulluhum qataan ala alsawaabi ala alsawaabi fa kulluhum yadcu lmuridin ila taati rabbi alarshi haysuma jalla bilistiqaamati fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim abada sëñ Tuubaa nee na ci xamle lan mooy wird mu ne boo xamul mbirum wird na nga xam ne lu màgg la taxaw na taxawaay bu màgg ci lislaam moom nag mooy loo taxoo ci ak jaamu yàlla wutal ko waxtu di ko ci def moo xam zikkar la wala julli la wa hadduhu inda tawil ifaada shay'un murattabun min ibaada fii waxtihi ba teg ci mu ne baatu wird mi ngi jóge ci ci root ci am ndox mi ngi jóge ci root ci am ndox loolu la wax nee na wird yëpp nag dalay jegal yàlla rek moo xam wirdu xaadir la jóge ci Cheikh Abdou Xaadir Jeylaani moo xam wirdu tijaan la jóge ci Cheikh Ahmad Tijaan wala ku dul ñoom ñoom ñaar ñii ci xut bi ñoom ñëpp ci ak jub la ñu nekk bu leen reetaan bu leen weddi ñoom ñëpp dañoo waa murit bi ci topp yàlla képp ak ku njub sëñ bi tekki ne waa asluhu al waxyu aw il aw il ilhaamu yaxassuhu bi ahlihi salaam in kaane waxoon waxyan fa huwa lin nabi aw kaane ilhaaman fa lil wali bisaatuhu kitaabuhu al munassalu mufarriqan wal asaru musalsalu kullu waliyin doo tashabbusin abad bi dayli man arsalahu xaqul ahad kullu waliyin doo tasabbutin abad bi dayli man arsalu xaqul ahad fama yeti muxsisa nabi yajusu fi karamati wali li annahu waaris wa fal anbiya xojooju rabbina ala alxalq hiya wal awliya adilatu tasini dinihi wa sidqihi sahi fa anbiyahu taala xusimu wal awliya xusisu wa kullu ba wax jooju àggee sëriñ bi nee na wird wird woo gis rek ci ab yonant lay bàyyi ko sunu borom xamal ko wala mu jógee ci ci aw waliyu sunu borom yenkeewal ko ko sol ko ko ci alxuraan lay tege ak xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax foofu kon yaakaar naa loolu leer na ci wàllu googu ngir bañ a guddal ci wàllu googu sëñ bi nag teg ci lu am solo ne wa in aqasal wirda faltu ba jël umar umaruhu xayral masaayaata nga ngi nee na boo jëlee aw wird nag ah na nga màggal ay biram nag kon da nga am gën gi may de amal lazi maqaama wirdin ankara mustahzian bihi li kurhin wasdira képp ko xam nag day wir day day diingat wird di ko xeeb ak di ko yëjji wala di ko retaan ngir sib ko fa du jaxaalatin kama nasal alam ibnu ataillah fii man na fii man ne kam nee na koo ko def loolu daal boroomu réer la de ni ko boroom xam-xam bu yëpp xam ba ibnu ataillah waxee ci maddal xikam loolu sëñ bi wax de nee na boo jëlee aw wird da nga koy jàpp bu wér màggal ko moo tax nga nga mooy tax nga am xéwal waaye képp kuy weddi am solo wird ak di ci reetaan ngir xeeb ko ak bañ ko ku réer la ku réer loolu la ibnu xataayilaa moo ko wax ca al xikam sëñ bi teg ci ne ci masaalik man lam yudim shay'an min al awraadi mudayyi al waqti ala tamaadi falaa lahu yawma yujaasa annaasu ilaa xaraamun wa jawan bu baax falaa yuxafifu umural wirdi siwaa xasuudin zi xelen wa xiqadi fa kayfa yustaxqaru dikrullahi adaamuhu alfata bila tanaahi ba àgg ci fa in kasalta an umuril wirdi falaa turum inkaaraha lil xaqadi fa in xajasta an wuruujil mawridi falaa taxa anhu aqi min ahadin wa alam bi anna kasratal ujuri bi xadril awraadi maxal fujuri ci tënk sëñ ci baax nee na képp ko soxalul dara ci wird di sànq waxtoom bu ëllëgee bu ñuy fay nit ñi aw naqar képp lay am ak njàqare ak ay koo gis mu yoofal mbirum wird daa iñaan rek te amuk bañeel waaye zikkar soo xam ne dañ koo saxal xamoo ni ko ab jaamu yàlla di xeebee sëriñ bi teg ci ne boo mënta wird itam bu ko weddi boo mënta dem fa ñuy rootee bul gàllankoor kenn mu dem fa te nga xam ne kem ni say wird bare noonu la sa tuyaaba di toll loo gën a teewlu loo gën a teewlu ci loo gën a wer loo gën a teewlu ci wird yi tamit sa tuyaaba di gën a màgg kon gis nga wird mi ngi noonu mbir mu màgg la mbir mu rëy la kon naa yem fii tey bu subaa wala jataay bi di ñëw ma ñëw ak yow nag ci sëñ Tuubaa jaar gim jaar ci wirdu xaadir jaar gim jaar ci wirdu saasiliya jaar gim jaar ci wirdu tijaan ak donn loo gu ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak donn gi mu donn ñetti wirdu yooyu ci seen boroom ak it donn gi ko yonte bi sallallahu alayhi wa sallam donn loo ñetti wirdu yooyu jox ko ko ci kanam ci teewaayu ñetti kilifa yooyu kon suba foofu la ñuy jëmale sunu waxtaan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala